asalaamaaleykum mbokk yi déglu xibaar yi gën a fës tukkee ci Seta Dakar de l' observateur yéen a ni bëgg du bañ moom da koy wane lu ko waral ndekete yoo am na borom soxna yoo xamante ni film rek la ñu mën a joué ndax kii di ajaat Déthié Thioune de soxna Cheikh Béthio Thioune elle est devenue actrice ndax moo joué film bu rëy fële ci kaso ba ca Thiès de Adja Déthié Thioune moom moo jël tenue infirmier dem seet ki nga xam ne mooy jëkkëram Cheikh Béthio Thioune may wax ne nag kon gars yi am na ñoo xamante ni film rek lañ mën a joué xam naa ni moom Adja Déthié Thioune moom ku ko dugaloon ci émission un café avec dina nangu Boubacar Diallo ci diggante Lisa ak Kati Chimère Diaw l'observateur ñëwaat ne ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll de ndaxte kii di guy gi pare na digganteem ak Ama Baldé ndax moom nee na soobuwu ci benn yoon kii di Aziz Ndiaye moom moo ko bëgg te moo ko tëgg ak fansam yi nee na Ama Baldé na taxaw ndax jël na ci ay matuwaay yu mat sëkk te fans yi dal leen seen xel te xam ne dama koy dóor dem ñibbi déglu leen l'observateur ñëwaat ne kii di Aljuma jàlloo moom moo dóor jabaram ji tudd Oulimata Diallo de toll ci juróom-ñetti weer da koo dóor ba mu faatu te sax yóbbu nañ ko fële nga xam mooy district sanitaire ba ca Kédougou pour ñu rawale doom ji may wax ni nag kii nga xam ni yaayam dafa gaañu baayam nekk kaso liir boobu bu juddee fan la war a jëm xanaa SOS mbaa LS2 L'As Quotidien ñëwaat ne ngàccee ngalaama waay ci kat Modou Xarañ Lo gannaaw bi nga xamee ni def na tournéem ci kaso yi ci ndakaaru de jëlaat na dàllam dem fële nga xam ne mooy CICES yóbbu na ay ndàmpaay ci sinistre yi nekk CICES de may na leen 200 moustiquaires ak 200 soo ak 200 darab fase na leen taxawu te teeru nañ ko ni ñuy tëralee buur ba seen métit yépp faaleetuñ ko jour bi ñuy gisee Modou Lo manaan nag kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom de Modou Lo ngàcce ngalaama waay L'As Quotidien ñëwaat ne Momar Ndaw DG Ascosen porte ne plainte ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane mbay doomu Kéba mbay de lu ko waral ndax ñoom nee nañ seen réseau bi baaxul benn yoon kon nag mbokk yi fi laa yam ak yéen ci xibaar yi fi jotoo ruus seen xarit Prince Ciré moo leen dikkaloon ci révider de presse yi di leen jox dig daje ba suba ak jàmm ci 7actu dakar point com